di wax ne leen dañ leen di wax li am euh, extrait de naissance ak euh, ak ak certificat de ak certificat de naissance maintenant benen pàcc bi mooy inscription à l'école inscription à l'école ñëpp xam nañ ko fa tabaarakallaa ndaxte képp ku nga xam ne yàlla dogal na ñu inscrire la école nga jàng am sa am sa ay diplôme dangay ngay daal di sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam daal yow ñak ak yenn choono yi dañ lay wacc parce que président dafa ne képp ku nga xam ne yéen xam ngeen ne fii programme yi duñu jeex pétrole ak gaz dafa feeñ ci réew mi donc képp kuy def ay formation bu yeboo nga préparé wu nga def ko mu jëm ci pétrole ak gaz parce que loolu mooy les formations du futur beneen bi mooy jeunes yi

Nous ngi accompagner 6000 relais relais communautaires, nous relais communautaires. parce que relais communautaires, nous ñi nga nous nous pas les familles pour le changement de comportement nous avons di nous relais communautaires, nous ak nous pour donner la ba nga avez nous euh, am donc bourse la man booy Dakar laa booy Médina laa mais ci àll bi laay gën a liggéey dama gis dama dis ay baykat yu am bourse familiale ma waxtaan ak kenn ci ñoom ni ma doo di président de la république nag ma ko gërëmal na mu ko santal ndax lii mu ma jox lu rëy la man koo ah bon mun mu lu rëy la ndax man ci lay jënd sama jiw jiw bu baax ci laa koy ame ci laay jënd sama tos ba noppi bay du ma bayee bay bi day gën a rafet njëg bi gën a yéeg ba noppi la may am ca mbay ma ci laay fayal sama doom lu mu soxla ci école ba mu jàngee ci laay faju di suivre seen exemple rek li def dañoo am ay xale yoo xam ne leen financé woon ñu demoon di inaugurer seen siège donc foofu la jógee def une caravane yëngal tuuti quartier bi je pense que ça a été une bonne vraiment parce comme ni nga waxee rek liñ de c'est l'avant-match parce que le match que nous bi joué ça va être le 21 janvier quand le président sera là donc allons apprendre à occuper les rues aussi parce que le président bu il va falloir que nous remplir la rue 6 donc a qu'un ni la mobilisation bi GMS mobilisation de may c'est ci mobilisation de may c'est ci ni lolou bu ne nañ ko inshallah le 21 janvier le président sera ébloui quand il va rentrer à la Médina donc même si nañu gëna taxaw gëna défaru pour que le 21 madame la ministre je pense que ce que vous faites est exceptionnel et c'est très bien c'est inédit parce que dañu yaakaaroon ni bu ñëk politique moy ñëw rek je pense que ce que vous faites c'est pédagogique et c'est politique en même temps Nous sommes ñu ngi si jàngat di jàng di si xam programme président Macky Sall démb encore une fois nous aussi ñu essayé nañ lu on a rassemblé des étudiants et des élèves et on a fait un peu de de ping-pong en discutant avec eux pour voir effectivement seen i nous lu ñu bëgg loo xam xamuñu ko programme président Macky Sall ñu jàngal nous génn am ay éclaircissement yoo xam ni xëy na dina tax ñu soppi seen i euh, conviction donc je pense que lii ñuy def fii di ko def ëllëg di def je demande aux militants de la CATB ñu ñëw di fekkee manifestation yu mel parce que day tax ñu jàng lu bëri ci programme Macky en tout cas ñun on fera tout pour être présent politiquement il faut aussi qu'on se batte il faut qu'on soit sur le terrain il faut ñu def porte nañu programme bi yéen am ngeen programme bi je pense que bu ñu dajaloo comme ni nga ko waxee waxuma la sax 4-2 mais match yi mën na terminer 10-2 noonu mooy ndigal li ñu président jox rek nañu dem leen ci nit ñi ngeen wax ak ñoom Té Gungé Macky Sall une organisation boo xam ne ci Benno Bokk yakar di len demal ci dugguñu lool politique bi lool motax ñom ay xalé ñoo xamné dañ capacité motax ñu concept yi muy ñetti concept concept bi ci liñ doon def muy liñu tuddé ñu def ko sous forme de série bo xamné dañ ko pourquoi voter Macky Sall ak des épisodes nous sommes le quatrième épisode bi nga avons la santé et la la protection sociale Nous avons jëppal l'infrastructure nañu épisode 3 barka l'épisode épisode 2 nous tapé, discuter nañu sur les services de base électricité eau assainissement premier épisode nous ñu defee ci Guy Mariama sur l'économie et le secteur primaire en particulier l'agriculture muy nag loo xam ne moom la ñu bëgg continuer di ko dérouler panel yi ndax bu ñu waxtaanee ci ngoon gi xale yi dañuy daje volontaires yi nga xam ne ñooy fer de lance suñu mouvement dañuy daje gën a waxtaanaat ci li ñu fi waxtaanee bu ñu xëyee suba ci yoor yooru gunge Macky Sall yi ñu dugg ci kër yi dugg ci marché yi expliquer nit ñi li nga xam ne moom la président def ak li mu mébét ndax loolu moo am solo campagne électorale mbumbaay bi baax na waaye li ci gën a am solo mooy wax dem ci nit ñi wax leen lu tax ñu war a woteel Macky Sall ndax bulletin yi moo am solo ñuy ñaan ñëpp nag ñu dem jëli seen carte mobiliser wu dem voté ji pour que président li mu commencé mu mën ko yeggali.